allah le 5 le 30 le 2 cette fois la dernière dañ koy ubbi par force par force la voilà. may nañ koy semaine may nañ koy fan le 2 bii moom bu ko tijjiwul on va passer à une vitesse supérieure moo amul sax ma dem te ñëw bu ma deful ah mooy naa ni kon bu boobaa moom dina fi jóge wala sport ci waaw dee ba faaw. de leur stade la jeunesse de Tivaouane en a marre. dige yoo xamante ni boobu ba léegi da ngay dige muy dañ di dige muy dañ li ñu soxla mooy xeexuñu xuloowuñu xasantewuñu waxuñu dara lu ñaaw parce que Diop si bu réussir juru réussir la ñun waa Tivaouane yëpp parewul mu delloo ñu ko ñu liggéey ko suñu bopp monsieur Demba Diop si bu dee mënu kaa liggéey mu delloo ñu ko ñun ñu ñu fubal si noonu xam nga ne man nama naa esat ku ma xam-xam ne man nama naa esat loolu koy ubbi moom la waxati moom la waxati nañ ñaan yàlla mu su ko ubbiwul la dë waaw loolu yëpp yàlla su ko le 2 non dañuy defaat bu gën a saf bii. nous sommes aujourd'hui le le 22 mercredi euh, après trois ans d'attente euh, nga xam le monde sportif est bloqué le monde sportif tivaouanois est bloqué par le, euh, les promesses du maire Demba Diop et de son équipe municipale donc tu as fait le constat euh, tout le monde du sport ah euh, toutes disciplines confondues taekwondo karaté. basket, handball, football. Et eh, l'ASC Les Damel, qui est l'équipe phare de Tiaon, est par exemple pour réclamer son stade. Et eh, on ne réclame rien que notre stade. Oh, euh, à, à le maire et à son équipe. Donc nous, sommes là en tant que Tiaonois, nous sommes la en tant que militants de Tiaon pour demander notre, notre droit, notre dû à l'équipe municipale. Et eh, c'est dommage que depuis trois ans, le monde sportif est bloqué. y a y a y a y a a a combien de dates yu nga xam ni par exemple le maire les avait te te demeewul noonu après la déclaration du député Massa Massa à l'assemblée déggoon nañ fi date waxoon nañ nawetaan dina amul ak yeneen ak yeneen donc ñun ay waxi monsieur Demba Diop si euh, vraiment euh, du ñu jaral dóor suñu doom. waa GP TV ñu ngi leen di wax ni ñun ñoo àndoon ak ñoo àndoon ak si fii ci Tivaouane fal ko campagnal ko am si moom kóolute mais na kóolute boobu dafa am lu bëri loo xam daf ci wàññeeku mooy li ñu soxla mooy Tivaouane a besoin de leur stade la jeunesse de Tivaouane en a marre diggee yoo xamante ni boobu ba léegi da ngay diggee muy dañ di diggee muy dañ li ñu soxla mooy xeexuñu xuloowuñu xasantewuñu waxuñu dara lu ñaaw parce que Diop si bu réussir duñu réussir la ñun waa Tiwaawoon gépp mais nag bu yàqulee suñu yàqulee ñun waa Tiwaawoon lépp li ñu koy ñaan mooy bët yi ko Tiwaawoon doon xoolee am ci moom yaakaar ngan la waay yaakaar googu ba mu yàqeeku yaakaar googu li muy yàqeekoo mooy lii ci la bokk digg dig nit ñu loo xamante ni defoo ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa taala tey soo c'est ah, la jeunesse en particulier ñi nga xam ne ñoom ñoo fal Demba Diop si ñi nga gis ni mooy bu tànn jotee ñoo ni Diop si yow lañ tànn tey ñoom ñoo mel ni lu doyal ci moom te li ko waral mooy dafa sàggane sportif bu Tivaouane suñu jeunes yi suñu yi di wër bi taxawaalu ci dëkk yi di football laanu di basket ci àll bi su nekk bi amuñ terrain handball amuñ terrain basket trop bu taay kondo booy yëpp damm amuñ ay tapis donc loolu moo waral tey mbooloo mi toute la génn daal di Diop si jox ñu suñu stade wala moom ñu xool ak moom vraiment boo gisee li ñu gën a tàrreel may problème yi ñun pour ñu jouer si terrain synthétique dañuy cotiser ak équipe bi Thiès yi ku mën a dem Thiès du jouer foofu terrain synthétique bañaa dañu koy louer ñoom ñi joxe match ñu joxe match kon il temps tamit euh, monsieur le maire fii ñëwuñu fi pour politique ñëwuñu fi contre kenn ñun intérêt Tivaouane moo ñu ñor football yi moo ngi ñor damay waxee nag ñaari casquette benn bi mooy casquette yu école football yi bi mooy casquette yu club yi parce que au niveau des euh, écoles de football même bu ñu dee def ay bu ñu demee Thiès duñ fa mën a réussir parce que ñoom dañuy am habitude di entraîner si terrain gazonné di jouer terrain gazonné te ñun si suuf la ñuy euh, ñu bu ñu defee pendant trois mois quatre mois cinq mois compétition suuf bu ñu wala Thiès wala Mbour amuñu benn sens parce que ñoom terrain gazon la ñuy joué euh, te foofu la ñuy entraîné ñun nag amuñu sens boobu ñuy ñaan nag monsieur le maire Diop si euh, mu dimbali ñu ba defaral ñu stade bi stade bi defal na stade stade bu baax comme ni ko gars yëpp waxee stade bi jaruñu ñu koy def pendant ñu koy defar euh, deux mois sept mois mu yàquwaat ñu ko bëgg a defaraat quoi encore une fois maa ngi remercier waa Tivaouane yëpp j'espère que fi waa Tivaouane yëpp jënd nañu. ñoo ngi siar ngi siyaar ñëpp di leen wax ni que Diop Sy war na waati waawoon Diop si war na jeunesse su Tivaouane te ñoo ngi wax ni que fii lañ koy waxee ñoo ngi lancé benn pétition bu nga xamante ni dañoo bëgg délégation spéciale lañ bëgg ñu jëleel lu fi Diop Sy dinañ changé dinañ dinañ lancé pétition bi dès demain incha allahu rabbi fii lañ koy waxee ñun dinañ dama ni dinañ dinañ lancé benn pétition bu nga xamante ni délégation spéciale lañ bëgg pour ñu jëleel lu fi Diop si loolu day demee dina tàmbali loolu lañ buggoon a wax wa salaam. ñu suñu final ñu nag waa Mboro instant yi amaguñ benn terrain buñ ko joué à chaque fois buñ jàppee date problème de terrain la ñuy am pour ko te c'est pas normal. presque euh, on peut dire trois ans deux ans est amuñu sax nawetaan jéewuñu ko te ñoo ngi ni war a jouer championnat aussi te dañoo war di entraîner si terrain synthétique terrain gazon tout ça mais Tivaouane pour sport daal dañ ko négliger à point boo xam ne c'est pas normal te ñun ñu jigéen ñi aussi dañoo préparer pour pour pour projet de la foot féminin te incha allah loolu dañ leen ci taxaw suñu football bi barki yàlla la ñuy waat jëm si bu def te yaa ziirul fii wàcc mois décembre bi dinañ yëngalaat te dañuy gën a yëngal ba 19 ans affaire dañ ko teg ci yoon suñu sportif yi dañuy wër di taxawaaw di football suñu terrain bi dañu koy defaral booy taekwondo yi ñëpp a suñu booy basket yi suñuy dem Thiès di recevoir équipe bu Thiès di leen di gañe bu yoon ñi seen dirigeant def nañ li ci war yëpp pour dam équipe bi yéeg mais Diop si na Tivaouane kan mooy noonu Tivaouane mënuñoo am maire mu kon ne nekk suñu maire di nekk suñu noonu soit day ànd ak ñun mu xool nu mu ajagaay